en fait euh, CEDEAO comme comme il l'a dit ah sànq ci sama kii j'ai dit on a vraiment pas besoin de discours diplomatique. bien sûr seeni rôle la ñuy nekk. Mhm. de de faire un discours diplomatique encore que. putschistes yeneen yi kenn amul woon ak ñoom discours diplomatique. a à commencer par Yaya Jammeh xëy nañ ñële sax bu ñu nee ay militaire la ñu Yaya Jammeh du woon militaire. waaw donc. Euh, tey conseil constitutionnel. Mhm. comme li may wax. boo fàttalikoo élection législative mais le conseil constitutionnel a pris des décisions yoo xamante ni kenn comprendre ko. Mhm. on nous dit une liste mën nañu jël suppléants yi. bàyyi kii bàyyi titulaires yi. et on a accepté la classe politique a accepté xam nga xam nga itam il faut que le conseil constitutionnel en tout cas le Sénégal reconnaisse quand même à la classe politique que à chaque fois que mu mu mu mu tar ça vient de l'autre côté c'est pas de l'opposition parce que ça ci beneen dëkk bu mu mënti woon doon c'est incompréhensible qu'on nous dise que list bi mën naa comprendre nga ni list bi yëpp daanu mais mënumaa comprendre parce que justement proportionnel bi en fait kii bi day dem suppléant bi day dem mais titulaire bi daanu na hmm. juste parce que le Benno Bokk Yaakaar était dans cette situation hmm. je pense que su ci Benno nekkul woon bële moom léppay daanu parce que loolu mooy lii yoon mais néanmoins on a respecter le Conseil constitutionnel en tout cas les politiques ont respecté le conseil la décision du Conseil constitutionnel hmm. dem élection ci loolu c'est que vraiment aujourd'hui même pour moi le PDS dont on parle la le PDS c'est un parti politique qui est dans son rôle hmm. le principal truc dans cette affaire le seul bi ñu war a joxoñ baaraam c'est Macky Sall parce que moom PDS est dans son rôle de dire ah. bon dañ maa tooñ dañ ma lii mu am dëgg mu ñàkk dëgg c'est pas ça le plus important mm. mais le président Macky Sall n'aurait jamais dû s'engouffrer ci brèche boobu pour def lii mu def et aujourd'hui c'est le conseil constitutionnel la ne ñoom ñoo ñoom la ñu guerre mm-hmm. parce que à la base c'est ça su fekkee ni que dañ koy dëggal dëggal li ñu leen jox ñoom ça veut dire qu'on a un réel problème mm-hmm. est-ce que ce qui s'est passé avec le PDS ne parlons pas d'autres candidats parce que brèche bi c'est le PDS est-ce que le droit a été dit tout le monde sait que le droit concernant Karim Meïssa Wade quand même a été dit. a xëy na mun nañ ni c'était sévère wala c'est lii lu neex. Ah, waaye mën na wax mais mais non xam nga sévère. parce que une loi une loi c'est une loi. Mm. tu peux dire nag après way ñii ne dafa sévère ñii ne c'est pas sévère ñii ne lii ñii mais c'est pas ça le truc est-ce que le droit a été dit a été dit. Mm-hmm. sévère nag c'est pas le plus important est que le droit et tout le monde dit que le droit a été dit donc dès lors que le droit a été dit naka lañ ci mun a indee guerre j'aurais compris que le droit n'a pas été dit ñu ne voilà guerre am na mais la le droit a été dit loo xamante ni le droit et là pourquoi yow ngay guerre pour am dëgg bi gën a grave sax mooy pour c'est-à-dire que maintenant <laughs> quel que soit le truc mhm. quel que soit par ailleurs les manquements qu'il y ça nous a jamais empêché d'avancer. De continuer. Ouais. C'est-à-dire que ça nous a jamais empêché d'avancer. Aujourd'hui, on doit avancer. Mm. Maintenant, le 2 avril, comme le dit doyen, foofu la affaire yi di démarrer d'où le président quand même a encore une porte de sortie non plus par la porte il plus de porte mm. actuellement fenêtre ak serrure rek a fi des mm. fenêtre sax amatul serrure moo ci des génné par la serrure. C'est-à-dire que c'est quoi C'est de démissionner en tout cas et, ah de, de, de régler cette affaire. Et